maa ngi di ziar bu baax a baax a baax di am mbégte contentement ci accueil bu particulier bu ñu am tey ci xaaju guddi ci biir Nioro dina tàyyi mukk di ko wax xool leen tout le temps ñiy topp di déglu caravane coalition Diomaye Président da ngay xool bët yi ñuy tàkk naaj bi tàng seen xel bët yi di bu guddi seen bët di tàkk nga xool lii nga xam ne mbégte lañ la gunge de cofeel lañ la jox ba pare ba wan la bëggeel bu mat sëkk ma leen wax ne mbëggeel googu di jóge seen xol suñu xol gii ciy dugg bu tasee yaakaar rek ciy juddu waaye yaakaar jooju jamais de la vie ñu trahir ko on ne vous trahira jamais mbokk yi Nioro dinaa wax benn tey est ce xam ngeen man sama liggéey lan la. boo waxee ne seen candidat la liggéey lan ngeen koy wax. inspecteur des impôts et domaines. amoon na fi jamono nag ma doon jàngale. mais fekk na ma nekk inspecteur des impôts et domaines ba pare. di jàngale sama matière bi may liggéey maanaam impôt et domaine ñu koy wax fiscalité ci école bu mag bu ñuy wax ENSUD. kon tey wax may déglu rek tuuti cours de fiscalité. impôt domaine ci misaal mooy dëkk bii muy Sénégal bu ñu commencé 1er janvier. ci la gouvernement bi mois de décembre yëpp la ngeen di gis député yi di feeñ assemblée nationale di wax di xuloo ba ñu ne voté nañ budget bi. budget boobu ñu voté mooy alalu Sénégal ñaata la war a nekk ci atum 2024 ak naka lañ koy dépensoo lan la ñuy defaree ay tali lan la ñuy fayee ay salaire lan la ñuy tabaxee ay hôpitaux donc ñun nag ñu dénk ñu ñun waa impôt domaine ak waa douane mooy douanier yi. ak yeneen administration pour ñu dem uti ci xaalis boobu jox ko nguur gi waaye yenn saa yi nga gis société yoo xam ne rawatina société yi jóge bitim réew ñëw fii Sénégal ñiy exploité suñuy or di exploité suñu yeneen alal bari xaalis lool yenn saa yi yéenewuñ ñu sax ñun ñi moom or gi ñu fay ñu lempo bi nga xamante ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñu mel ni man bu ñu demee nag saytu ji leen te loolu def naa ko lu mat daanaka fukki ak mooy vérification fiscale maanaam ñu yónnee ma ma ñëw ci société bi yenn saa yi ma taw fa lu mat un mois deux mois wala trois mois di xool ndax ñoom lu ñu déclaré est-ce que loolu la ñu war a fay saa yu ma gisee nag dañoo sàcc dem leen di laaj lu ñu waroon a fay ba pare rëq seen nit ci ay pénalité waaye li tax ma lay nettali lii tey da am benn ressortissant bu jógee fii ñu koy woowee Moustapha Ba. muy muy ministre de l'économie et des finances. déglu leen ma rek saa ñëw dama bëgg lii leen di wax nii bés bu ngeen toogee ngeen wax ko ñu ne la fan ngeen ko teg. ngay ko fii laa ko dégg kon dafa am benn société boo xamante ne dafay exploiter or fii Sénégal du ma tudd turam nag ay ndaw yi dem xool ndax lu mu war a fay ci l'impôt fay na ko ñu gis na société bi làqan na ci lu mu waroon dugal ci gafak Sénégal lu mat téeméeri milliards ak cent cinquante milliards yoo xamante ne waroon na ko fay fayu ko ndaw impôt dem foofu gis ko laaj ko ko tegal ko ci ay pénalité loolu bu mu amee ba pare ñu ne léegi nag société bi commencé uti pexe ñu jaar ci agent yooyu muy ay agent yoo xamante ne agent yu responsable lañu yu vertueux lañu yu am bëgg Sénégal lañu ñooñu nee leen ñun bëgguñu seen xaalis bëgguñu ñun mënu leen ñu ger jël leen li ngeen war a fay askanu Sénégal ngeen fay ko parce que suñu askan soxla na ko ñu bañ téye ci loolu Moustapha Ba xam li nekk mbo Nioro xam ne fii la fekk baax baax moo ko fekk feneen mu waroon andi fii baax fekk ndox manqué fii fekk doxul taw yi liggéeyuñu li ngeen soxla mu ne société boobu nag yow doonte waroon nga fay cent cinquante milliards man baal naa la fayal quatorze milliards kese ma baal la cent te def ko nag ci lu teguwul ci yoon loolu maa tax député bu mel ni Guy Marius Sagna bindoon ko ne ko dégg naa ne am na société boo xamante ne mu ngi fiy liggéey hors Sénégal war a fay l'impôt ko wa impôt di kota PT téeméeri milliards ak juróom fukk yow yaa tere ñu jël loolu dugal ko ci askan wi kon di ngeen toog ne amul dara fekk na xaalis boobu waroon dugg ci gafak réew mi ñu jël ko liggéeyoo ko ñooro seen doom moo ko jaarale fu mu war a jaar bu mu andi fii xaalis bi séddale xam leen ne xaalis bi waroon a dugg ci seen dugg ci paj waroon di ci li defar seen dispensaires yi waroon li waroon di li leen jox stade lépp ñu leen mën xam leen ne ci xaalis boobu la waroon jóg waaye jëndee na leen doomu bitim réew bi moo tax waa ak waa Sénégal yëpp continué di am jafe-jafe ñu am tey est-ce que loolu jaadu la kon dina fi ñëw naan ay am na expérience nangam nangam xam nga lu leen wuute ak man expérience bu càcc lañu am te aw ma ko point bu dee sacrifice rek expérience bi ñu ci am moom macha allah boobu expérience nag dama ko soxla woon xam nga président de la république lan la soxla ci moom xam-xam est ce que gis ngeen ko ci man. dañ koy dénk suñu alal mooy loxo yu set ñuy soxla ci moom mooy mu nite nite mooy tax sa waa dëkk bu ñu dee ñaxtu doo génne ay nerf yi ñu ci rey nite moo tax sa waa sa doomu sa ndawi dëkk bu ñu demee ba xatu bay jël gaal di ci dee doo nekk ministre de l'économie et des finances di jël alal au lieu yóbbu ko ci ñoom ñu mën fi toog teral seen bopp teral seen waajur nga dem di ko jox ay société étrangère ñoom ñi leen manqué mooy xam-xam te loolu ak ñu ñu àndal président. may daanalee nag mooy bés ni ki bu ngeen ko fi gisee mu dugg di dawal ay te rafet xam leen ne loolu am ngeen ci droit mais à condition ngeen amoon njàng bu baax ku ko gis fekk yow yaa ngi am loo tawatlee. xam ngeen ne am ngeen droit faju waaye moom moo def war def ci alalu askan wi kon ba si adoption bu fa andee xaalisam fàttali leen lii may wax est-ce que loolu sax di ko ko baal. di ko ko baal. est que di ngeen ko ko koy defaat de. kon affaire bi dina yàgg baax waaye ndool dina fi.